salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mboolem fu ñu nit di seetaane ci réew mi ak biti réew ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam di asalaamaaleykum bu njëkk ba tey ñu ñëw ci li waral xew-xew bii nga xamante ni jullit ñëpp àdduna yëpp ñu ngi koy séentu di ko xaar muy màggal Tuuba màggal gi nag buñ ko dee wax war nañoo tàmbali ci boroom ci Cheikhul Xadim radiyallahu anhu kan mooy Serigne Touba. Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nit la koo xamante ni sunu borom defal lu ko defal tawfiixu àdduna ak tawfiixu àllaaxira ci gëstukat yi eh, li ñuy tënk ci Sëriñ Tuubaa mooy mm, ab jullit la bu dund ak njullitam njulliteem di ab citoyen bu bëgg am réewam li li ñu tuddal patriote di koo xamante ni eh, diineem jaral na ko lépp ba tax na li mu daj mu daj ko fi mu aw mu aw fa ndax dañ mës nañ koo laaj ni ko euh, sa dikk gi euh, li ko waral ci jamono mu ni lañu la ñu ko lislaam taqal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom laa fas yéene fóot ba mu set mu waxal ko boppam ne zaafatuhu kulli min allah wa taharat wa sunnatahu in saar bi ubayyinu la ñu taqaloon lislaam moom laa moom laay ñëw ko fóot si bi mu ko fóotee ba mu set na mu teg ko ci dëneer wan ñëpp yoon woo ci jëm kooku Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ba tax na bis bii ñuy jëm di màggal gi bis la boo xamante ni eh, moo ko diglee daan ko def ci 1921 la ko njëkk a def te it ci <clears throat> gëstu yu leer ak ay ak ay loo xamante ni ku ci dellu nekk lu palpable lu ñu mën a laal Serigne Moulay Bousso di Serigne doomi Serigne Mbacké Bousso moo waxal boppam ni cheikhul xadim radiyallahu anhu da ko jox ko aw béy jigéen ne ko nag ko soppil am xar te bay woowee e, wax nañu sax ci turu e, soxna si joxo si ko joxoon sëriñ Sëriñ Tuubaa e, di soxna wu si di mbokk ci Seydul Xadim radiyallahu anhu nga xam ne réew mi yëpp benn bopp lañu kenn mënu koo xar ñaar moo tax ko yóbbu di wax luy defar te bañ wax luy tàqale te soxna wu mi moomu magi sëriñ mu lay moo ko doon denc joxoon cheikhul xadim béy bu jigéen doy woowee la la Serigne Touba radiyallahu anhu joxoon Serigne Moulay Bousso mu soppil ko ko am xar mu ko ko soppilee am xar mu rey ko def ko ay saam ah, daal di digal eh, Serigne Balla Fari Dieng ne bis bi bu ñëwatee na ko yaatal ci taalibe yépp eh, bu ñëwatee nañ ko nañ koy màggal daal ni nag képp koo xamante ni eh, sant la ma sant la na ma ci yàlla boo léegi loo yàlla fay ñu bokk kon màggal gi Cheikhul Khadim moo ko digli ni fa Abdoulaye nekk rek. boo xam ne sa mbég sa mbég la bu bis bi ñëwee sant la ma ci yàlla loolu nag moom la ñuy waaj màggal nag bisub jaamu yàlla la bisub cant la ndax jaamu yàlla yëpp xeet jaam yëpp ak cant moo ci gën a mag ndax sunu borom bañ na ko ba wax ne la in sakartum la azidannakum waaye nag wala in kafartum inna azabi la shadid boole ma sante ma dolli waaye boole ma weddee sama bëggul lu tar la ba tax na mbooleem ku bëgg a màggal màggal nag ak màggali bokkul bëri na kuy màggali te màggalul waaye nag bari na ko màggaliwul te màggal ana lan mooy màggali ak al ana lan mooy màggal màggali mooy jëm mi jóge sa barab dem dem tuubaa loolu lan mooy màggal mooy jëmmi dem bi ana lan mooy màggal nag mooy dafa Serigne Touba santaane woon mooy jàng alxuraanul karim def ay salaatu ala nabi te xasida yi boo ko jàngee. yaa ngi def ñaar yaa ngi julli ci rasulullahi alayhi salaatu wasalaam yaa ngi tagg rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ndax borom màggal gi ma waxoon ni at mu nekk xaaj naa ko ñaar juróom benn weer yu njëkk yi may julli ci rasulullahi alayhi salaatu wasalaam juróom benn weer yu mujj yi may tagg rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ba ca desaat muy bernde bernde mooy fexe bay teral gan ña fa ñëw te tey waaw eh, sol biirub jullit la ca nekk tuuti yaaba ku ko xamoon loo am ma danga ko def ay ñam jox ko jullit ñi ndax nee nañu sol biiru jullit moo gën taxawal nangami juma wala nangami yàq kon lii mooy jëmi màggal gi waaye nag li la luñ ci mën a jàngati ci tukkib Cheikhul Xadim radiyallahu anhu bi nga xam ne fii la génnee ci Jolof jëm Ndar <clears throat> aw fam aw yëpp jeewal ba Louga ba ni mu àggee Ndar ba ni mu génnee ndar ñëw ndakaaru ba ni mu déparé ndakaaru jëm fa mu war a jëm yëpp ba ni mu demee Gabon dafa juróom-ñetti at yu manqué ba ak nattuñ ko teg yëpp ak nam ko muñe kon war nañoo jàngat ci Cheikhul Khadim ku gëm boroomam la maanaam quwatul iman ku gëm la war nañoo jàngat ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu am ak dogu la war nañoo jàng ci Cheikhul Khadim ni borom jom piir la ndax na loo xam ne borom jëm rek ko ko mën war nañu jàngal ci Seexul anhu ni ko mën a jéggale la ndax liñ ko teg lépp ak natt yëpp ba mu dikkee dafa dafa ne afawtu li wajhillaahi ma saw saf fi kalkal yi jéggal ñëpp ngir jëm yàlla te ànd ak xol bu set bu bu bu ci sedd beneen bi mu ne afawtu an aadaay turran li wa ci man mboolem ñu ma noonu woon jéggal naa leen ngir sama jëmi borom subhaanahu wa taala kon war nañoo jàngat jéggale am réew nag bu ci jéggale ju jugee fayonte des ca am réew tàkk na réew moo gis mu tàkk ak njéggal ak jéggal moo ci moo ci jug ba ci desaat yi war nañoo sëriñ ci Sëriñ Tuubaa jàmm ndax jàmm looy am te amoo jàmm jàmm ko gën looy ñàkk tam jam am lépp Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nag bañ na ko ba fa mu njëkk a sañ ci àdduna Daaru la ko tuddee mooy kërug jàmm gi ba pare daal di ñaan ni ijaal salamatan taduumu ya salaam li yow walil ayaali fi daari salaam yow mii borom jàmm defal ma jàmm ci sama barab ak sama njaboot kon war ñoo jàngat ci Cheikhul Khadim jàmm moo tax ku naan ab taalibi nga ku naan ab murit nga ku bëgg Cheikhul Khadim nga war nga koo ci wax jàmm ak dox jàmm ak jëf jàmm jàmm nag desu ko wax rek yam ca waaye des koy jëf ba pare di ko fexe bi ci deseet it jàngat ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu euh, xam ni. Eh, suñu borom subhaanahu wa taala du nax kenn ndax képp ku mu liggéeyloo danaa nar a fay liggéeyloo na sëriñ sëriñ Tuubaa liggéeyal na rasulullahi jaamu na borom subhaanahu wa taala yàlla fay na ko kon képp ku bëgg yàlla fay la awal ci yoon wax ndax loolu arab yi day wax ni man saara ala darbin wasal ku nekk ci kaw yoon ta wàccoo faw nga àgg kon mag màggal gi bisub jaamu yàlla la du bisub topp ba bànneex du bisub topp jaamu yàlla la ak fàttali góor yàlla googu nga xamante ni nee na kulliyati mu'jizatun taaxarat sama lépp la li mujj ci man gën a yéeme wax mbokk moomee kilifa googe eh, sunu su sunu sunu gidd boobee wax ni yéen ñëpp maa ngi leen di digal ni képp koo xamante ni mi ngi sos ci man ba mu noonu képp ku génne ci ñaa ci kàddoom laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon xaraam na ci jullit muy noonu mbokkum jullitam te yaakaar naa ni moo tax ñaar bu ñuy ànd sëriñ Bay te mënuñoo juboo am na ci kutul yàlla ñaar bu ñu àndiwut yàlla te mënuñoo juboo di xiiroo ak di ŋaayoo am na ku ci utul yàlla nit bu ñu yàlla nag yaakaar naa ne danañ ànd danañ bokk suñu réew mii nag mag ñiñ ñu yàlla defal il faut ñu leen di jàngat di leen gëstu ba pare di leen wasaare ngir ñëpp mën a def ci ñoom ay bind ngir ñëpp mën a jël ci ñoom ay référence ndax heure bu nit ñàkkee ñaar dara dox repère ak référence am nañ ko moom doy sëkk nag ndax ñu ngi koy jariñoo wala jariñoo ko loolay loolay mbir mi kon màggal gi nañ ci jàngate ni borom màggal gi lu ko warloo digganteem ak boromam def na ko moo ko waxal boppam na ñett moo dox sama digganteeg nit ñi ñett moo dox sama digganteeg sama borom ñu ne ko ñett yi dox sa diggante ñi yan ak yan la mu ni musuma tooñ kenn te ku ma tooñ ma jéggal la te lu ma am bokk ak ñoom sëriñ Bay borom màggal gi wax loolu mu neen mos a tooñ kenn te ku ko tooñ la jéggal na la te lu mu am bokk ak ñoom ñu ne ko yi ngay seq sa borom yu mu doon mu ne lu mu digle def naa ko Seydul Hadj Malick moo ko seereel demal ci Irwa Nadim Cheikh Mouhamadul Amin nee na Seydul Hadj Malick nee képp kenn ci gaa ñi def nga looy jéggaloo sa borom ba mu def Cheikhul Khadim nii mu ngone woo nii rek la màggee xamuñu lu mu lu mu def lu mu jéggaloo boromam. kon mu ne musuma lu sama borom digle de def naa ko te kenn musuma seen ci lu muy tere te lu mu dogal neex na ma Cheikh Rafal dañu woon nag jàmm yàlla yëpp gi ci ëpp ëpp ci dayo mooy nanga dogal bu yàlla nanga dogal yàlla mooy lu yàlla dogal mu neex la kon lii mooy message yu màggal gi nga xamante ne jàngat bu ndaw la buñ ci doon am di di ko def yéena ko bëgg jullit yëpp ndax dañoo bëgg ñu xam kan mooy Cheikhul Khadim ndax ku ko xam rek bëgg ko wallahi ku ko xam bëgg ko